jafe-jafe la waaye tamit ñi bëgg liggéey ñooñee ñoo ëpp ñi nga xam ne dañoo bëgg ku leen liggéeyal ba tey ci biir journal bi moom njiitul MEDES daan nay wax ne lu jëm ci wàllum jafe-jafe emploi loolee lu universel la maanaam lu mondial la forum du premier emploi li tax ñu teg ko ak lan moo ko wundu bokk na ci jàppale ndaw ñi daal leen di tàggat ci lu jëm ci nan la ñuy wutee am xëy jàppale leen bu baax a baax ndax ci réew mi bëri na ci ay ndaw yoo xam ne am nañu ay diplôme te jamono ji amaguñu liggéey xamuñu sax yan technique la ñuy jëfandikoo ngir nag mën a am liggéey te ndaw ñooñee maanaam a a encourager ne dañ leen a war a révélo waaye tamit dañ leen a jàppale ndax ëllëgu réew ñu ndaw ñi la niki démb fenn fu nekk xale jóge na fa ngir nag fekk si li nga xam ne muy atelier training bi nga xam ne niki nañu ko amal ba tey ci biir journal bi di moom président Mbagnick Diop daat nay wax ne ci yoo xam ne amuñu qualification dañoo war a nag am esprit de créativité nga xam ne ñooy ndaw ñi maanaam gëmloo leen seen bopp yéen kaay gi nee na démb bëri nay ndaw yoo xam ne gàdd nañu seeni diplôme ñëw nag ci li nga xam ne mooy atelier training bi ba tey ci biir journal bi nee na forum du premier emploi bëri na ñoo xam ne ay cadre lañ ji ay kilifa ci réew mi fa la ñu jaaraan ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien ni ki démb Pape Malick Ndour mi nga xam ne moom lañ dénk ministère bi jëm ci wàllum ndaw ñeek wàllum xëye maanaam wàllum emploi daat wax ne lu jëm ci wàllum chômage bi loolee fléau mondial la nee na tamit njiitu réew mi di président Macky ma ngi xar tànk tubayama ngir nag chômage bi daa di wàññeeko wala mu jeex ci réew mi priorité nationale la ko moom ministre Pape Malick Ndour daat nay jaajëfal bu baax a baax waa MEDES ci taxawaay bi nga xam ne jamono am nañu ko ci ndaw ñi yéen kaay gi de la ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñuy waa FMI ñoom nag sore wuñu ak ñuy chantage Sénégal ndax dañoo bëgg a jox Sénégal lu toll ci cent trente trois waaye nag loole la ñu wax Sénégal mooy lu jëm ci wàllum subvention énergie bi maanaam ñu daal di koy wàññi bu baax a baax yéen kaay gi de la témoin nee na FMI ñoom jubbanti nañ bu baax a baax wax nañu ak Sénégal ci lu jëm ci wàllum subvention énergie journal bi nee na central syndicat yi ñoom nag jamono ji mer nañu ba maara détaillé ndax ñoom nee nañu nag duñu nangu benn yoon ñu yokk li nga xam ne mooy courant bi ak gaz gasoil bi ak essence bi ñoom sax ñoom central syndicat yi yéen a kaay gi di Walf Fadjri nee na ñi nga xam ne ñuy waa FMI ñoom nag nee nañu subvention énergie bi nga xam ne Sénégal def na ko ci atum bi ñu ko xaymaa toll na ci 750 milliards te nag soo muy tuulee dina yegg ci atum bi 800 milliards yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee ji nga xamante ni dund gi dafa metti ba maara day talee ci la état bu Sénégal li nga xam ne mooy a baax te gën a sonn rawatina ci lu jëm ci wàllum transport ndax ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi ñoom bu ñu yokkee carburant yi ñoom dañuy yokk paas bi yéen kaay gii di li ko di ñu ay njëg yoo xam ne dafay yokkaat maanaam njëg yi yokkaat foofee ci la Sénégal jëma yéen kaay gii di li ko di jen moo xëy di ko xibaar askanu bañ mbir mi bett leen ngir bañ mbir mi bett leen yéen kaay gii di laas ñu xëy fekk fa Alassane Ndoye syndicaliste nee na nag yàggatul dara ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi danañu daal di dem ci ab girawa yéen ko dëggal nee na ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi ñoo ngi dànkaafu te nag bu ñu demee ci ab grève bu mu bett kenn yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu accident bi nga xam ne fan yi moo amoon ca diwaanu Kaffrine 39 personnes ñoo ci faatu woon jamono ji lim bay egg na 40 personnes maanaam ñeen fukki nit état bu Sénégal xaalis bi nga xam ne génn na ko maanaam ñi ci faatule ñooñee danañu leen jox lu toll ci ñaari millions ñi nga xam ne ñoo ci ami gaañu-gaañu kenn ku nekk danañu la jox lu toll ci benn million journal bi di réew mi quotidien na ñi nga xam ne ñooy jaaykatu pon yi xam na ñoom la ñu joxaat bi baaraamu ñoo ngi sang seen bopp ñoom nag ñoo ngi setal seen bopp jaaykatu pon yi nee kenn tudd

defoon nañu ko ci lu jëm ci xaalisu covid 19 bi rapport bi jox nañu ko procureur ay yéene kaay gi di bi nee am na fukk ak ñaar yoo xam ne ñoom la visé am na ci ministre boo xam ne soo muy tuwulee nag caaf xëm lambay ñaaw ay yéene kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa bugaan gi dañi daat nay wax ne jamono ji jafe-jafe nga xam ne transport bi am na ko ci réew mi loolee Mansour Faye la maanaam Mansour Faye mooy responsable bi nag te nag jamono ñi nga xam ne ay voleur lañ de la république maanaam ñi nga xam ne dañoo sàcc alalu askan wi nag ci lu jëm ci xaalisu covid 19 bi ñooñee nag accident bi am ci diwaanu Kaffrine moo tax ñu bëgg ñu koo fàttaloo waaye nag du ñu ko fàtte benn yoon yéen kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu accident bi am ci diwaanu Kaffrine ñi nga xam ne ñoo moom ñaari bus yooyee convoqué nañ leen démb enquête nañ leen garda nañ leen fii maanaam tegegun nañ leen loxo yéen ne état gi di ñëw di def contrôle ndakaaru loolee mënut a nekk loolee mënut a nekk yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na journaliste d'investigation bi di Pape Alé Niang niki démb daat nañu koy libéré contrôle judiciaire Karim Xurum Xaq ak Cheikh Omar Diagne ñoom tamit libéré nañu leen yéen a gi di libération nee na Karim Xurum bi muy génn dañu koo signaloo signé wala moo tax tey jii boo muy tóole dana jàkkaarloo waat ak doyen des juges yéen a kaay gi di sunu lamb xëy wax ci combat Boy Niang Modou Lo bi na am na juróom